ndaxte xam naa sama mbokk ni nga féexale xoli yàlla yu sell yi am na lu ma la bëgg ñaan teguma ko ci sañsañ bu mat bi ma kirist may ci teg la lu def sa warugar waaye dama lay ñaan ci mbëggeel gi ñu séq man pool màggat mi ñu tëj kaso ci turu kirist maa ngi tinul sama doomi diine onesim mi ma jur ci kirist fii